la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha la ilaha la la la ilaha la la fa la ilaha la la la ilaha la la la ilaha la la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 la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha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 fa la ilaha illallah fa la Amdi Fall sëñ Modou Mbenda muy jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall ji fi nekkal maam Cheikh Ibra yebal ak njabootam ay rakkam ak doomam ak murid yi waaye jëwriñu yoon wi ñu nekk nag muy ndaw yi nga xam ni ñoo ko ñëwal fii teew muy sëriñ Cheikh Fall mii moom sëriñ Modou Moustapha Fall. ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mooy jëwriñu sëriñ Amdi Fall di loxoom di léppam mu boole ko rakkam yii ak njaboot gi ñu ñëw siyaareel ko bisub soxna jaara bi nga xam ni benn la ci àdduna ji nga xam ni nee du am ñaareel mukk moo waral nag bi mu fi toogalee Cheikh Ibrahima Fall mu bàyyi yitteem yëpp ñëw wuy si Serigne Touba muy Cheikh Mouhamadul Mountakha moo waral Serigne Amdi ñëw Porokhane teew si waaye lam bëggoon nag mooy yëkkati jëmmam ja ñëw ba ci kanamu Cheikh Mouhamadul Mountakha mu jàkkaarloog moom waaye loolu dafa rëy ci moom lool moo waral rek mu yebal ndawam yi ñuy ay rakam. di jëwriñam ni buñ fi teewee rek teew na fi de. kon nee na sëriñ am di nee mi ngi teewaaleen mboolem jabatu Cheikh Ibra Fall gi ak mboolem murit yëpp ak mboolem jullit yëpp ñëw gii mu ñëw daal fasaale na ci mboolem lislaam nee lislaam nag mooy jullit yëpp jullit yi ñooy murit yi murit yi ñooy sëriñ bi kon bu teewee teewaaleen na ñëpp kon ñëpp teew nan kon sëñ am dee nga siyaare di sant tey gërëm di yeesal nag alal jëm fi fekk muy alali Serigne Touba jum teg maam Cheikh Ibrahima Fall te muy jëwriñ ja jébbaluwaat Mbàkke yeesalaat ak njébbalam te fas yéene la maamam ya nekkoon ak waajuram ya ak magam ya yoon woowee ñu awoon ba egsi fii moom rek la fas yéene yeesal aw ca woowee yoon muy yoonu ndigal fas yéene nee na fu mu nekk na xam ni yaa ko fa bàyyi sëg bëgg rek la fay déglu mi ngi ñaan nag nga ñaanal murid yëpp nag ban gën a jekku ndigalu Serigne Touba yëpp te yàgg koo jëfee nee mi ngi sant bu baax tey gërëm nee ñun nag suñu ñaanu njaam gindaan ñaan ñoo la koy doole ñaanal Mbàkke nee na jëmm ji teew ba ci milliards milliards junni ruu ñaan nan suñu borom mu weccel ñu ko sa ruu Mbàkke nga yàgg fi lool te ànd ko wér ndax yow dey yow la suñu borom wóolu teg la ci kanamu yoonu murit wii Sëriñ Tuubaa it yow la doyloo teg la ci yoonu murit yi murit yi itam yow rek lan doyloo yow rek lan am yow lan bëgg kon nag ñu ngi ñaan yàlla sunu borom ci barkeb Sëriñ Tuuba ak darajey jaamam ba muy Cheikh Ibrahima Fall Mbàkke Balla yan na nga fi gën a yàgg gën a wér gën a man li nga bëgg lépp yàgg ko liggéeyal Sëriñ Tuuba ànd ko mboolem lislaam jëpp sëñ bi nee na xolam sedd na guy yu Mbàkke mi ngi ñaan ci nag borom bis bi sunu borom day du jeexal mukk dañ nee ku ko ñaan rek la bëgg nee ñi ngi ñaan sunu maam jaara sunu borom dolli ngërëmam ya dolli leeram ya dolli xewalam ya ba liggéey bi mu liggéeyal boromam ba lii ci feeñ kenn mësu koo bët kenn mësu am fenn muy Serigne Touba kon ñoo ngi ñaan ci sunu borom mu dolli seen i ngërëm rek te yow mii fi toogal Seexul Xadiim murit yi fi taxaw yëpp ak yi fi taxawul ñëpp maase nañ ci di sant cey gërëm di la ñaanal Mbàkke nga yàgg fi lool nee lii nag daa am bis boo xam ne ca ginnaaw booba ak léegi mel na ni amaatagul ko muy bis ba nga wootee woon di sant lu yàlla sunu borom ci boole gim ñu boole Serigne Touba nee loolu ci nga doon sant loo yàlla. nga def ko njukkal nag sa maam ja sa jëwriñ ja mooy Cheikh Ibrahima Fall muy bisub sikrullahi boobee nga wote woon ne loolee sedd na xolub jullit yëpp rawatina nag njabootu Cheikh Ibrahima Fall moo tax Serigne Amdi Fall nee na loole mi ngi ciy sant di ci di ci ñaan nag la nga ci bëggoon lépp Serigne Touba defal la ko ca xolu sedd nañ ci guyu ñaan nag. jotaay bii mu yàgg lool ci sa loxo Mbàkke nee lii daal bu mu doon suñ mujj gisee na ni gisa faawu rek tey man faawu tey ne ci sa bëgg faawu jërëjëf Mbàkke sëñ bi nee seer bu baax nee nu yépp yëpp ak julli yëpp nee ñi ngi naan ñaan jàmm nag ci réew mi ak àdduna jëpp waaye Sénégal gii ñu nekk ko ci tàmbalee ba génn rek ba daj fépp mbas mi fi nekkoon xam naa bu jeexulit cate na waaye na jeex tàkk rek la nga ca waxoon ni ndawal suñu borom la dañ koo yabal si su ko soobee du fi yendu su ko soobee du fanaan kon noo ngi ñaan loolee nga xam ni ndaw yabal si woon la mu jël ko yóbbu ko fu kenn gisul ba génn murit yëpp génn julit yëpp ndew te wuutal fi loo xam ne nag day doon jàmm akuk wér ak i xéwal man koo liggéey sëriñ Serigne Touba jërëjëf Mbacke nee ñoo sant bu baax jërëjëf Mbacke. mu ne kaddu yi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Fadal yëkkati na ko. mu ne kaddu yi jarul dolli dara. mu ne ñun ñëpp dégg nañ ko. mu ne daañu ko mën a jariñoo. mu ne liñ ciy dolli rek moo di. mu ne ngeen siyaareel ko sëriñ di santal ko bu baax. mu ne ngeen santal ko ko bu baax. gis nañ yi. mu ne gis nañ ndaw yi. mu ne fa tabaarakallaahu. mu ne mi ngi amati mbégte mu rëy. mu ne di ci dollee sant ak gërëm. mu ne kon nag kaddu yi. mu ne bu ànd ak jataay bi. mu ne ak ndigalal sëriñ Amdi. mu ne yooyu yëpp. mu ne dolli dara lu dul. mu ne lu dul fas yéene feddali ay laxasaayam. mu ne fas yéene yeesal ak jaayanteem. mu ne di leen ko seereel rek nag. fa yéene ko ànd ak yéen rek. ba fa ñu tax a mu ne mooy fa kanamu Serigne Touba. mu ne jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. bismillah kon na ñëpp taal seen loxo. dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat mam jaara ma dellu kañaat bakaat wawaat wayaat dellu sulliwaat am soxna jaara ki jaloorem nu ñaaxuwaat mam jaara ta tànk ci géejëm gi saxoo du su géeb lay lay la la te tibb ci xeewal yee kor dellu sedduwaat mam jaara nawet baa ngi ah. waamew yàlla waa ngi di wal fu waay tax mu sax meññ la kaloo gum mu séqi waat maam jaara ku dëkkaale ak yàlla ngi ba jobaani ku rëy ay jaloore ngi nii di xudwatu saalihaat maam jaara lu jim njaaga ah. maam jaara di njaag ummu say xamoo man dab lu fees lii dellu kuy ñëw di rek di xaat samam kooma ngi andam ba ngi soxna jaara mi di ko day di waajtaay wow koy waaja taaru waat samam kooma ngi andam ba ngi soxna jaara mi di ko day di waajtaay wow koy waaja taaruwaat ku man góor ku raw kaa ngi ku rëy cër ku màgga ngi am yitte ak pëste fa ngi tey ku sàmmwaat te sàmmam ga ak ga yin moo di gànjaram wasa bi xoona saa xoona ko daajiwaat